tey jii ñun ñi fi nekk muy man di Idrissa Ndiaye eh, ak conseil municipaux yi fi nekk yépp ñoom lañ fi représenté maire dafa amoon yéene ñëwul boppam fekke lii fekke waxtaan wi ndax ni ko soxna si waxee tey boo demee Italie lu mat juróomi junni sénégalais ña juróomi junni yooyu boo ko doon seet ñetti xaaj yi Touba lañ dëkk wala ñu aju ci tubaa kon warugaru Touba la lépp loo xam ne ñu ngi ciy taxawu ñu ngi suñu bokk yi nekk bitim réew di fa liggéey kenn waru cee jiitu Touba kon maire mi ngi yeesalaat engagement ci loolu jotal nañoo li leen andi tey jii dëgg-dëgg mooy ni ñoom dañoo bëgg fexe ba am bureau fii ci Touba ndax nit ñi dañuy jóge fii Touba wala ñu ni leen da ngeen di dem ci ay cyber. te du ñëpp ñoo jekk loolu dem ci cyber di yónnee ay ay ay message ñu dina tontu du ñëpp a ko mën kon li gënoon rek mooy ñu fexe ba waa ñi nga xamante ni bii ñooy waa IMCA ñu ubbi benn bureau fii ci Touba principe bi maire d'accord na ci nee na leen nañ bind ndax am na ñu bari sax ñu bëgg ñoo nga xamante ni bi sollicité nañu. ni dañoo bëgg ubbi si bureau Touba mais maire nee bu ñu bindee bataaxal yónnee ko ko dina ci partager ak président commission coopération décentralisée euh, partager ci ak bureau municipal xool ba xam loolu ci yenn anam la mën a amaa léegi bu dee ci dëkk bi moom nee na tàllal na leen doxo ndax lu mu ni woon seew ndax njabootam gii di fi jóge di dem Ndakaaru guddeeg bëccëg lu ne woon sew ñu yem ci dëkk bi di lijjanti seen i mbir ci dëkk bi ndax tey gis ngeen waxtaan wi ni mu guddee li ko indi mooy nit ñi dañoo amoon ay jaaxle yu bare bare bare yu ñu amoon te gisuñu kenn ku ñu waxal gisuñu ku ñu laaj tey jii bi leen yàlla dimbalee waa bureau bi ñëw fii bureau bi déplacé Dakar ñëw fii yaakaar naa ni liñ leen fi laaj ci ay question boo ko seetee ëpp na téeméeri question ca question bu ci nekk rek question bu fondamentale la te ñoom ënd nañ ci ay tontu dem nañ ba xam ni sax réunion bu mel nii mënut a jeexal question yooyu waaye yéen ñi nga xamante ni bii yéen waa waa Touba di immigré yi maire nee na boo ngeen dalal seen xel ñuy ñëwee dina ci jàpp kemt lay kartanam ba ñu am bureau nga xamante ni bi fii ci Touba ku leen soxlaati doo soxla dem Dakar foofa ngay yëpp ñu ngi di gërëm yéen ñëpp comme ni ko adjoint maire dafay léegi rek euh, di wax ne ñu ngi gërëm waa mairie bu Touba ci dalal bi ak ganale bi euh, di remercier si sama ñaari collègues yi ma àndal fii ñëw fii yu IMCA Dakar Abdoulaye Ndoye ak euh, Vanessa madame Dieng Vanessa Marquez dañu ñëwoon li ñu fi indi rek mooy ne suñu xel dal na parce que ñu ñëwoon pour seet si mairie bi xool ban forme de collaboration la mën a am Euh, pour mën a tijji fii euh, am fi benn bureau wala benn permanence bu ñu am fi à Touba pour mën a faciliter suñu mbokk immigré yi ak seen i njaboot yi nekk fii Touba di leen éviter coono yi ñëw ba dakaar ñu mën leen di leen fekk fii euh, ci Touba pour yombale leen seen kayit moo xam ñi fa nekk di liggéey moo xam ñi fa nekkoon ci génn àdduna seen i njaboot wala ñi war a dem fekk it seeni i wayjur moo xam ci wàllu regroupement familial yi liñ fi gis it kontaan nañ ci dala bi dalal nañ suñu xel aussi commune bi pare na pour ñu def benn collaboration ak ñoom ci lu yombaloon suñu mbokk immigré yi seen i këyit ndax euh, lu kenn mënul euh, naataable ne ne Italie dafa ne ci ay sénégalais xayma nañ leen su lu ëpp cent mille sénégalais te boo ko xoolee pàcc bu si gën a ngande ñu ngi dëkk fii ci Touba. kon dafay di day justifier li tax ñu bëgg ñëw fii xool lu ñu collaborer ak ñoom euh, gën leen yombalal li seen i démarches yi ñu war def ak këyit yooyu yëpp. kon daal naa ne si tënk loolu mooy li ñu fi indi te suñu xel daal nag kontaan nañ tamit lool si ñi ngi fi fekk euh, question yi ñu posé ak liñ ci leer liñ ci waroon a joxe te yaakaar nañ tamit ne question euh, tontu yi leer na la voilà ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.